ngeen di wax ne am na centre boo xam ne am na ay ay xeer donc nag centre bi nga xam ne moom ngeen doon wax ne ay xeer a ngi fi centre boobule moom la ñu commencé lii di depuis. voilà depuis nag commencé nañ ko ci fi nga modi euh, foyer des jeunes bu Grand Yoff euh, ci bureau numéro 13 xeyna nak nag bureau bobu rek awa mais mën nañ ko am comme genre bureau euh, témoin bu nga xam amna fi ci foyer des jeunes ndax ñi nga inscrire, ño fa inscrit won mi ngi tollu ci 582 inscrits votants yi di 183 votants ñi nga xam nak ño ñoo jitu modi coalition yewi Askan Wi coalition yewi Askan Wi Pape Diop mom moy le candidat ñu ngi am 102 voix 102 voix yooyu la nag ki nga xam ne moo ci topp mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, te Cheikh Bakhoum jiite ko moom mi ngi am te une voix ñeneen ñi nga xam ne ñoo topp nag mooy euh, coalition gëm sa bopp bi nga xam ne Issa dellu ci waatal ci Benno Bokk Yaakaar moom mi am 16 voix ñeneen ñi ci des nag ci mel ni euh, Moustapha Mbeng bu Sénégal 2035 waaw Benno Bokk Yaakaar 31 voix la am 31 voix Benno Bokk Yaakaar 31 voix la am Euh, mhm. ñi nga xam ne ñoo di waa coalition gëm sa euh, bi nga xam ne Alioune Badara euh, Kebe moo ko jiite ñoom ñi mhm. ngi am seize voix coalition gëm sa bopp ñoom ñooy troisième donc am seize voix Yewwi Askan Wi am cent deux voix

liggéeykat yi avec liggéeykat yi du bass ñaari nit ñoko coalition défar sa gox bu Adama Faye Diop euh, voix lañ am muy fukki yo leen euh, Corinne voix parti de l'espoir du progrès bi nga Pierre euh, Gandou ñom ñent nit ñoo leen voté ñi xam ne ñoo di mooy euh, mouvement des patriotes pour le développement liguey ci njiital Pape Mor Cissé ñu gën ko xam ci Fra Cissé ñoom ñu am 6 voix loolu dal moy li ñu mën a nemmeeku en tout cas benn bureau de vote bi nga xam ne nañ mais nak ci kanam touti xëy même budul live bi sax téléphone tax dañoo bëgg daal di dajale lépp lu nekk ci centre bi diktal leen ko ngeen mën koo amandoo en tout cas mën a ne ma ko ci bureau de bi nga jot bi nga xam ne moo jot a ne moo di ne euh, Madiop Diop moom moo am cent 102 voix benn Bokk Yaakaar am 31 voix li des nag awa mooy euh, ci buntu bi. ñi ñi ngi nekk di euh, amal li wax rek daanaka ay jubilé ay yuuxu ay coow ba tax na sax ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo nekk ci euh, file ci biti daanaka di takk der yi a fees gën a bari ndax nag ñoom buñ buñ fàttalikoo dafa jàkkaarloog fi nga xam moo di siège bu parti socialiste Awa Diom Ndiaye loolu lañ ci mën a nemmeeku ci kanam tuuti nag dinaa ñëwaat parce que dañoo bëgg a dajale résultat bu centre yi par centre pour mu gën yomb ci yéen ñi nga xam ne yéen a ko voilà moom mooy gën a wax sànq bu fekkee ci benn centre nga def toto yi nga jébbal ñu ko moom mooy euh, gën a yëwen ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy déglu mooy gën a indi sax lii di euh, clarté ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg xam euh, Moustapha ah, mais également am na am na ku ne ma pour faciliter la tâche à tout le monde il faut faut citer les trois premiers mu jeex oh, mais bon pour être juste quand même moi je préfère comme on est au début et que c'est des premières tendances il y a encore rien qui se dessine. ñu dellu Padois mieux vaut jël résultat yëpp. ñu dellu Padois ak Moussa Sène Moussa. Voilà, voilà c'était juste pour compléter avec Félix euh, et Sergent Malamin Camara. Dans uh-huh. un centre qui commune au Padouabi. Il y avait deux bureaux. Puis notre euh, bureau, bureau de le nombre inscrit 441, le nombre votant 105, bulletin Il y a eu tout pour la commune, il y a eu service à 45 voix. Benoît Bokoyakar à 21 voix. Les Verts, 18 voix coalition de à 13 voix Bokk 10 1 voix Sénégal 4 voix et dom 2 voix ça c'est pour la commune pour la ville uh-huh. euh, pour la ville Yewwi Askan a à 70 voix sur 441 euh, inscrits et 105 votants uh-huh. Yewwi Askan 70 voix Ben mbopé Akar 22 voix Boko gis une voix union citoyenne buntu cinq voix Wallou Sénégal cinq voix et coalition Sénégal 2035 une voix et coalition Djamireumi, cinq voix D'accord, accord euh, Moussa ñu bàyyi la poursuivre euh, jox ñu li nga xamante modi moo di rek yi ruusee ci euh, mbagn gàcce Mustapha, Moustapha mhm. ñi ngi wax mais manquement également il faut ñu citer ci benn bo xamante ne mi ngi goudi mhm. déploiement bi Goudi la mhm. et on sait que établissement yu bëri amuñu courant wala amuñu ay lampe les gens sont obligés fi à Dakar jël ay torches di nit rawati man nak ñi jaajëfal nañ leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy video